salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di bokk ziar ci weeru koor wu tedd bi di leen bal àq di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy borom dëkk bi te nekkal fi borom Touba di sant bu baax kilifa yi ñu fekk ci jumaa ji ci njiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ak si ci kuréel gi nga xam ne mooy muqaddimatul di liggéeyal jumaay Touba gi. ak lépp lu ci aju di saar ñi fekk bu baax ñëwoon tey nag doon jébbale si liggéey bi nga xam ni yàgg nañ koo def tax takkuñu at yi waaye daanaka liggéey bi mu tàmbaleeg léegi yàgg nañu at mu nekk ñëpp dajale seeni dërëm ñi nga xam ne nag yàlla dafa dogal kenn ku ne daa ko dégg te mosoo koo gis ak ñi ko daan gis ku ne nit ku ne am na ñoo xam ne luñ jox fàtte ko am na ñoo xam ne luñ joxe bàyyi ci seen xel seet ndax liggéey bi àgg na fa mu jëm wala déet te liggéey bi de yàlla dafa dogal ci ndigal lañ ko teg ndax barab bii ñu toog xam ngeen ni lépp lu yàlla gërëmul du fi agsi nit du xelu sax jëmale ko fa ba mu fay yegsi kon ñoo yee nga xam ñoo nekk sow ak bitim réew mu néew mu bari lépp lu ngeen tàbbaloon ci liggéey bi jox ko ci ñi nga xam ne ñoo ko daan laaj mbaa ngeen dem ba xam ne war na rek ngeen def ko incha allah liggéey baa ngi nii ñu agsi ci jébbale ko sant nañ ko yàlla ak yonent bi Sëñ Tuubaa bi ngeen jëlee seen ñàkk jox ñu ko donte dërëm la ba ñu àggale ko fa mu jëm loolu sant yàlla la ndax nit ki moom bu la joxee ñàkkam donte sax ci saayir la woon rek suñu borom da koy laaj yowmal xiyaamatul akbar rawatina nag mooy liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xam ni loo ci waay di lekk rek dafa war a rees ndax Sëñ Tuubaa amul dara loo xam ne du rees kon bu agsee fi nga xamante ni fi lañ ko soxlaa woon ci ndigalu imaam yi nga xamante ni ñoo ñu defaloon lettre yi mu yaakaar si ñaa fi yóbbu ak fi fekk tey liggéey baa ngi nii ñu ñaan dërëm ya fa ngeen di tibbee du jeex fañ koy sotti du fees mu ànd ak gudd fan ak wér di ñaan it ñëpp ñaanal lañu ki ni yéen yiw bi nga xamante ni àdduna ak alaaxira la mooy sunu yaay càkka ñang nga xamante ni ku ràññeeku la ci yoon wi ak tuubaa gi ak jumaa ji nga xam ni képp ku ma doon ndey ndeyee na la képp koo xamante ni ma doon kilifa la féete na la ci ndeyjoor ak càmmoñ mu baax ñu ko ba ñoom ñu nangul ñu ko ba mën a wan ñoom ñoo ñu liggéeyloo ci ndigal ndax taalibe lu mu def tànn leen diggal rek neen la moo tax yàlla na gën a barkeel yàlla nañ leen fi yàgg fekk téeméeri at ànd nañ ko ñi ngeen xamoon nag ndax man maa yor kàddu gi dinaa ko joxe léegi Abdoulaye Boulé ngi nii toog ndax kuréel gi ñëpp xam nañ ko Cheikh Ibrahima Waaj mu ngi nii toog Abdou Guèye mu ngi nii toog euh, Abdou Ngom mu suñu yaay cekk ak Cheikh ko Kotiari mu sëriñ Cheikh Béthio yal na yàlla yokk ay leeram kon ñoo ngi gàttal di jox kàddu yi euh, Abdoulaye Boli moom sant mbaa Ibrahima moo waaj. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbooloo mi waaw xanaa sof ci kàddu tuuti rek ndax ndigal la waaye jëwriñ ji wax na wax ji yépp defe naa liggéey bi tey liggéey boo xam ne sunu tawféex la sunu sunu ndimbal la sunu yokkute la sunu ngërëm la ndax ah, su demee ba yàgg fii tey ah, nu mu ko waxee mooy sunu yaay ju baax ji soxna Cekk Ñang ñu koy ñaanal. ci barke weeru koor bi yàlla na ko yàlla defal yërmande fu mu ne ak ñu ngi fa fekk ñëpp wax dëgg yàlla lii moom day taw tawféex di ngërëm di ngëneel di santaat kilifa yi ñu fi fekk nag bu baax a baax euh, ñoom ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ndax buñ ko tàmbalee ba léegi boobu ay tuut tànk lañu ba tey jii karaw weex na tàll <laughs> kon nag santaat nañu yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek di leen fi yàgg fekk ngeen gën fee yàgg gën a wër. liggéey bi nga xam ne seen maam ngeen koy liggéeyal ñu ànd ko ñun taalibe yi yàlla bu ci dara yàqu yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla na ko sëñ bi nangu te gërëm ñu te ful ko naa kàddu foofu rek laa fay yem. te deesu ko mën a jiwaat fii moom lu raw mën nga ko fàgguwaat waaye fële lu la fa raw mënoo ko fàgguwaat te loo fa loo te loo luñ fa am fii lañ ko fàggoo te foofa nag du jeex te fii day jeex fii. àdduna day jeex li man ak man gi nga xam ne ci ngay defee li ngay fàggu ci àdduna day jeex te man googu kat li àdduna yi gàtt gàtt gàtt gàtt ci àdduna ko àdduna li mu gàtt gàtt gàtt moo sut ak man ndax ki fii door a ñëw du man dara bu fi yàggee tuuti dootu man dara diggante su gàtt ci lay man dara boo gisee ñu yoo xam ne fi ñuy wax ne nit ki na fàggu ci juróomam balaa juróomam a ñëw bu ñu njëkkee wax ne bi bi muy dund balaa faatu dañ caa teg ne ak ndawam bala moom doon mag ma ne ci ci dund googu bala ma di ci la ndaw geeg mag gi nekk waaye importance bi mu am moo tax ñu tuddaat ko ci biir mooy diggante bi nga amee kattan ci ngay mën a defee lépp lu lay jariñ àdduna ci ngay mën a defee lépp lu lay jëriñ àllaaxira diggante boobu nag boo ko sàgganewut ba def ci la nga ci war a def da nga ci jëriñu àdduna jëriñu ci àllaaxira waaye wala asbillahi ku ko sàggane ba defu ci lam ci war a defit mooy indi jafe-jafe àdduna di indi jafe àllaaxira yàlla nañ ci yàlla kon nag ndokk yéen bi nga xamee ne wax nga ko léegi fi ngeen nekkee ndaw ba fi ngeen di duggee ci ak mag nii lépp yéen ko ko ci liggéeyal Serigne Touba kon sañ gën a am yaakaar bu baax waaye Serigne Touba laa doon liggéeyal ba samay moroom raw ma moom nopp ma su koo dégg bët ma su koo gis te nopp du ko dégg mukk bët du ko gis mukk kon nag na ngeen xam ne mooy li am njariñ tey te mooy li am njariñ ëllëg na ngeen ci jàpp te sax ci te képp ku ngeen ci mën a woo képp ko ngeen yéen i jàmm te ban ko ci woo te xam ne su ngeen ko ci wooyee mu dugg ci ngeen woo ko ci mu dugg ci loolu rek mooy li am njëriñ di leen gërëm bu baax di seere seen taxawaay itam ci kanamu Serigne Touba mii ñu nekkal ci liggéey bi di ko di di leen sant te di leen ñaanal yére ji ngeen am ci muy yokk waxtu wu nekk suñu boroom gën leen cee dimbale ba mu àgg fa ngeen ko bëgg a àggale jërë ngeen jëf yàlla nañ fi teewaat ne ngeen déwén kenn bañ a manqué ci barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin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 أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد